Mousso Mousso ii fi loolu moom bu ko sax xalaat xanaa dangaa bëgg sama papa génnee ma kër gi na imaam takk sëy bi léegi ñu yeewee ko sëy kenn du ko forcé lu ko mooy yoon dal sa kaw teg la ay daan xale bii nag li mu wax neexul gaa waaye dëgg la de bu dee dëggit kenn laaju ko ko ay ca lagal fa nga ne woon